c'est pas possible <laughs> non c'est pas possible non Maki, maki maki dafa soxor Macky mo soxor xawma ma andon ak ñoo soxor mais man dama japp nit ñi dañoo na dañuy dem ñu ne xaaral ñu yàq alalu réew mi xaaral ñu caxat-caxatee li nga xam mom la fi askan wara fekk wala ndaw yi wacc terrain bi di xex ni and ak Ousmane Sonko bu Yalla ñu jël fi fekk dara ndax yenn joxe non soxor amna ci li xew ak avion bi yàlla na fi gëj yàlla na ko fi yàlla yemale dàmbooj am na point boo xam ne man d'accorduma ak yow nee nga maanaam am na ñoo xam ne nii maanaam ndombo tànk dong lañu ñu amoon te tabax yëkkati nañ fa ay immeuble yoo xam ne mat na milliard bu ñu ko toj parce que askan wee ko moom man baara personnellement dama naan nañ ko toj suuf si nga xam ne askan wee ko moom alal ji nga xam ne askan wee ko moom foofu espace bu war a libre la na toj